ñu proposé leen en tout début euh, Thione Seck euh, dans un duo avec euh, Youssou Ndour mu naan kan moo ngi ñibbi Thione Seck nag ñibbi na ñibbi na fi nga xam ne moom mooy këru dëgg démb dimanche Euh, sénégalais yi euh, yeewoo ak tiis euh, ki nga xam ne nag moom mooy le fondateur le leader du Ramdan wane ginnaaw Thione Seck nag gannaaw baat bu neex bi mu nekkoon koo xam ne parolier la te it woy yi nga xam ne woy na ko depuis les années 70 80 90 yëpp dafa nekk actualité ànd ak li nga xam ne moom mooy suñu jamono ñu koy sargal nag euh, di ko jaale euh, par ma voix euh, l'ensemble du personnel de la télévision 7TV euh, di jaale njabootam di jaale askan wi waaye tamit di ko jaale suñu bopp ndax kat Thione c'était un patrimoine national euh, donc ñu ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy suñu programme l'invité de MNF bu tey bi nag tey nag may dalal ki nga xam ne moom mooy capitaine Mamadou Dieye Euh, moom mu nekkoon ci larme bu Sénégal euh, gannaaw nag euh, ba mu jógee ci l'armée boobu à la suite d'une radiation ci la taxawal li nga xam ne moom mooy mouvement nit l'être humain nit ngir rek engagé wu en politique moom Mamadou Dièye nag 2018 la tàkkaliko ak larme bu Sénégal mu bëggoon am fas yéene bokk ci présidentielle bu 2019 mi waaye lu nu mel mu jita antu à cause des parrainages mu mujjee jàppale ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck moom nag quitté na loolu nga xam ne moom mooy coalition Idy 2019 euh, Mamadou Dieye nag euh, daanaka boo gisee ñu koy euh, waxtaanee et puis ñu indiwaat ko c'est juste pour comprendre lan mu xew aujourd'hui au sein des forces armées Euh, ba nga xam ne euh, ñuy noté démission la dernière en date mooy bu capitaine euh, Omar Touré nekkoon officier adjoint fële ci section de recherche bu gendarmerie mu déposé li nga xam ne moom mooy démission après une disparition de quatre à cinq jours moom Omar Touré mu nekk en arrêt de rigueur pour une durée de quarante cinq jours ak Mamadou Dieye nag euh, dinañu dellusiwaat euh, ci li nga xam ne moom moo taxoon mu quitté bi ndax kat euh, wax na abordé na question bi nii rek mais daanaka mosi ci dugg dans le fond ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy l'avenir de nos forces de sécurité waxtaanee wàllu politique sécuritaire waxtaanee événement yi nga xam ne Sénégal jànkonteel na ko mu nar doon menu bu yaatoo yaatu ñu fas yéene rek dugg ak moom revisiter. dénoncé li nga xam ne euh, moom mooy les véritables raisons euh, de son départ euh, de l'armée donc ñu tàmbali suñu waxtaan bi léegi léegi Mamadou Dieye bonsoir. maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu teewaay bi fii di la remercier ci invitation bi di nuyu sénégalais yëpp yi ñuy seetaan di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di jaale comme li nga wax Thione Seck sénégalais yëpp parce que c'est un patrimoine national comme ni nga ko waxee donc euh, di ñaan yàlla oyofal suuf ci kawam yokk leer ci biir bàmmeelam di. profité aussi si situation bi di jaalee sénégalais yëpp yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci xew-xew yi fi jotoon am di ñaan seen deret nekk luy sedd si suuf Sénégal di masaw aussi ñi nga xamante ni dañ ci am ay gaañu gaañu moo xam civil la moo xam homme de la di masaw aussi ñi nga xamante ni tey yàqule nañ si seen alal dem si wala ñu yàq seen affaire donc di am mbégte trop teew fi nii. merci beaucoup euh, capitaine euh, Mamadou Dieye alors euh, balaa ñuy tàmbali rek euh, juste une précision en 2018 gannaaw ba nga dugalee démission di demander pour que ñu bàyyi la nga génn les rangs ñu defal la lu ñuy woowee radiation mm-hmm. est-ce que radiation bi dañ la privé de ton titre wala dañ la dégradé en fait euh, le grade de capitaine c'est un titre Maintenant, la radiation m'a permis tout simplement d'être en fait euh, enlevé de tout ce qui m'empêche d'entrer dans la vie publique parce que radiation boobu noonu bu ñu ko deful woon tey am na loo xam ne du mu ko mën a def te ñu bëri lu ñu xamul mooy bu fekkee dañu dugg ci cadre force de défense et de sécurité seen démission dafa am benn complication judiciaire bu ci nekk euh, Léopold Sédar Senghor président Senghor moom moo jëloon disposition yooyu ak président Diouf ne nañu def de telle sorte que les officiers bañ a dugg dans l'espace public donc ça veut dire que man bi ma introduire samay demande bu fekkoon ne hiérarchie bi da ko bàyyi mu dem ba président de la république signé ko jusqu'à l'âge de cinq ans man du ma mën a dugg en politique malheureusement ils ont bloqué la demande donc en bloquant la demande président de la république bi mu koy yëg man fekk na dugg naa dans l'espace public donc c'était trop tard moo tax finalement il m'a donc raja bi ñu lay rajee da nga hmm. garder li nga xam ne moom mooy sa type. donc kenn kenn kenn kenn ramonewul pertu loolu doo ko perte kenn dégradé wul parce que dañuy gis ay euh, hmm. exemple de radiation yoo xam ne hmm. dañ koy raje ba pare wàcc ko mu nekk soldat deuxième classe donc ce n'est pas votre cas même si si décret bi da ngay gis dañuy bind radiation boobu noonu mais en réalité le grade mënuñu la ko xañ waaw dafa mel ni un avocat un médecin ak lu mënti xew vous gardez votre titre en fait mais ce sont des dispositions judiciaires qui vous permettent tout simplement d'aller vaquer à autre chose voilà donc bu fekkoon ne nag demande dañ ko bàyyi mu jàll man tey du ma mën a toog ci plateau bi di wax. ak sa droit à une pension de de en fait man xam nga ñun man bi may démissionné pratiquement j'ai fait 10 ans 2006 2017 voilà donc euh, man finalement j'ai demandé à avoir une retraite anticipée donc man liggéeyaluma armée lu ma war a jox pension. voilà donc loolu moo tax man on m'a radié fay ma samay droit ma dem samay alors bi ngay euh, introduire sa euh, demande de démission bi mhm. euh, demande de mise à la retraite anticipée mhm. fekk na nga matal dix ans yi nga xam ne moom la ñu wax ne il faut nga matal ko balaa ngay am droit aspirer à exactement man j'ai été recruté en août 2006 donc man bi may déposer samay demande c'était en janvier voilà donc man j'ai fait dix ans dix ans d'armée léegi nag coow li koy indi mooy xëy na man samay chef il voulait pas que je l'armée mu nekk loo xamante ni aussi mën naa ko comprendre parce que tamit on a fait de grandes écoles militaires ñëw amuñu problème mu notation amuñu problème mu avancement am un bel avenir dans l'armée donc xëy na bi ma demee nag ba war a bàyyi loolu neexu leen donc may rappelé ne Saint-Cyr nga génne en 2006. Euh, bi ngay euh, quitté yaa ngi nekkoon euh, commandant de compagnie. voilà doon ay missions militaires yu yu yu bari. au Sénégal et à l'étranger. si si voilà donc bi ma ñëwee nag ba war a bàyyi xëy na ñoom ils ont été surpris mais dañ ci commettre ay maladresse en fait bi ci njëkk mooy nit ki boo amee njaboot su demee ba am kenn ku fippu ne day génn bu boo ko nga laaj ko mais man amul benn autorité militaire bu ma woon ne ma lan moo tax nga bëgg a bàyyi. ils se sont juste barricadés donc demande yi nga xamante ni soumettre naa ko yëpp ñaar yi dañ ko bloqué te loolu mooy première faute bi parce que bu fekkee ne dafa am officier bu sumetre demande bi demande bi c'est adressé à l'autorité ayant pouvoir de nomination maanaam le président de la république parce que yow en tant que capitaine général bi yow ak moom yéen am statut donc yow sa demande moom amul droit légal pour bloquer ko mën na def nag appréciation su ko neexee mu def favorable wala défavorable mais amul droit téye ko donc bu ñu ko téyee rek ils enfreignent la loi donc demande yi ma def yëpp muy trois demandes dañ ko bloqué benn bi lañ bàyyi ba mu dem ba état major particulier du président de la république boobu général Abou Thiam moo fa nekkoon ñu jël demande bi dugg ko si tiroir yi quand informé de ça nag si la bind sama chef de corps à Bignona ma ne ko nag ça fait temps de temps ma nekk fii nii demande yi ma soumettre yëpp bloqué nañ ko maintenant je pense être libre avec le le service te balaa may quitter aussi je suis allé voir le président du tribunal de Bignona expliqué ko mu ne ma dans l'administration quand quelqu'un soumet une demande officielle à l'autorité au bout de deux mois si l'autorité ne réagit pas il est libre il est quitte avec la loi bu dee armée quand on soumet vous une êtes quitte wala mën nga dem def recours au niveau de la de la de la cour suprême effectivement après procédure boobu yëpp man dama ko topp parce que bi ma toogee ba mu leer ma ne ñii duñ ma jox sama papier je suis allé voir le médiateur de la République ak preuve yëpp bi ma jógee ci médiateur de la République je suis allé voir le procureur de la République ce jour-là malheureusement fekkuma ko fa je suis j'ai trouvé là-bas son substitut moo tax man sama cas bu mu commencé moom bi ñu ko woowee pour sama dossier dafa ne non capitaine bi soo leen fi indee dossier am du ma ko instruire kii yéen ko tooñ jox leen ko ay papier loolu la gouverneur euh, procureur de la république wax la ministre des forces armées. procureur de la république ah, euh, Bassirou Gueye loolu la wax le le ministre des forces armées ne ko kii soo leen fi indee dossier am du ko instruire voilà a ko toj jox leen ko ay kayitam donc disposition judiciaire yi ci waroon yëpp man def naa ko j'ai même appelé l'aide de camp du président de la république pour wax ko ne ah situation bii nag mi ngi nekk di xew au niveau des forces armées lépp li ma yoon may def naa ko ils ont bloqué les papiers dem naa si ñi nga xamante ni nag médiateur de la république procureur ñoom ñëpp wax naa leen pour que lii nii mu nekk loo xam te ne dañu ma jox sama papier ma dem sama parce que maa bëggoon bëggatuma am naa droit de démissionner il m'avait promis maintenant de voir avec le SEMGA pour ñu jox ma mais bon après je parti en France parce que bi ma toogee réagir wuñu ma dem France bi ma demee France je suis resté un an toog di leen déglu pendant ce temps comme j'avais quitté le camp de na ñoom ñu bloqué samay demande ba pare bi ma génnee ñu def demande de désertion léegi nag désertion boobu tamit di suivre son cours vers le ministère donc circuit bu mu toll man dafa am nit yu ma doon informé. mais sauf que. Mhm. Euh, nga nga déposer démission ñu bañ. Mhm. après nga quitter noonu tamit c' est c' est contraire au principe militaire peut être que loolu moo tax ñu ñu ñu considéré comme un déserteur. léegi nag problème bi mooy li nga xam ne yoon moo la ko may une fois que nga def ko mais autorité militaire bi dafa am obligation légale et morale d' agir demande yi ñoom nañ ko bàyyi mu dem. moo tax man avant may dem j'ai pris mes dispositions parce que xamoon naa ne foofu la ñuy jëm. mais parce que yow tamit da am obligation morale et disciplinaire aussi euh, d'attendre que l'armée libéré la. moo tax man deew ma je suis pas parti. dama ñëw Bignona def demande yi deux premières demandes yi sama chef direct moo ko rejeté donc ma jël ko denc ko en gis de pièce à conviction. troisième demande bi muy demande de disponibilité boobu lañ mujjee bàyyi mu topp circuit bi loolu yëpp man je ma demee nag ba mu egg impar yaa y a quelqu'un qui m'a appelé ne ma moo capitaine sa demande yi si na fii depuis telle date mi ngi si tiroir yi gars yi dugal bugguñu ko yóbbu ñu defee loolu je suis allé voir mon de corps mais instant boobu ce sont en fait la hiérarchie moom mooy def pression si sa chef direct ne ko demande yi mu fi ñëw donc yow boo demee si sa chef direct tamit à la limite dalay daw sax loolu tax nag bi ma demee ba laajte ñi ma xamoon ñëpp je suis voir le président du tribunal ma xam ne tôt ou tard de toutes les façons si confrontation la ñuy dem ça a toujours été comme ça nit ñi dañuy déposer seeni demande mais dañ leen ciy def ay affaire yu salté te nit ki su defee service am mu dem ba gis lu ko neexul mu ne day bàyyi il en a droit te gëm naa ne l'engagement dans dans tamit. xam nañ loo xam ne dafa yomb heure bu la neexee rek nga jóg. mais effectivement xam nga tey euh, en tant que officier vous êtes dépositaire de tellement de secrets. si si ah de tellement d'informations mënuñu tëb tëb rek tam bàyyi bàyyi un officier comme ça dans la nature. moo tax après li si topp yëpp day am sens parce que man bi ma koy def je mesurais en fait ce que j'étais en train de faire parce que tey li tax ma bàyyi musuma ko wax en fait j'en mais tey Sénégal moo dem ba toll foo xam ne dafa baax yooyu noonu ñu wax ko nit yi dégg ko ñun lépp lu ñu doon Sénégal moo ñu ko def moo jël xaalisam def si ñun ñu dem jàngi ba pare ñibbisi si pour servir ko kon suñu demee ba egg si yenn ndomba tànk yi di tekki suñu ndomba tànk peut-être am na lenn lu tax. vous bouclez dix ans de de de service. Mm-hmm. Euh, vous êtes promu à un brillant avenir. Mm-hmm. Euh, vous très jeune vous aviez trente cinq ans à à l'époque. Mm-hmm. Euh, tey amaan na boo toogoon yaa ngi étraîner say grade de de de de commandant euh, lan moo la mën a pousser nga nekk ndaw. yegg si fi nga yegg si euh, nit ñi di la gisal avenir bu bu bu rafet yow nga décider ne. da bàyyi lépp. wane ginnaaw. waaw ñun bi ñu ñibbisee en 2012 on était affecté à Bango man j'ai fait un an quatre mois à Bango à la tête des compagnies. bi nga ñibbisee Saint-Cyr bi nga en fait Saint-Cyr ah, c'est la formation initiale mais après Saint-Cyr da ngay dem application donc ñun Saumur man Saumur laa jógee ñibbisee armée sénégalaise mooy la spécialité en fait voilà man je me spécialisé dans la cavalerie mooy les chars la voilà donc 2010 bi ñu ñibbisee on était affecté à Bango on était à peu près une vingtaine de jeunes officiers sorti des grandes écoles militaires donc 2012 nag ñun lañ ñu affecté donc si génération boobu pratiquement plus de la moitié ñun ñëpp on faisait partie des unités d'élite para commando blindé donc ñun ñëpp dañu waroon engagé wu Casamance et période boobu Casamance dafa tàngoon l'aide de camp du président moo nekkoon suñu chef de corps donc moom i a Maïssa Sélé Ndiaye Maïssa Sélé Ndiaye voilà donc il la Casamance il savait ce qui nous attendait mais pour moom on était non seulement trop jeune mais inexpérimenté pour mu bàyyi ñu ñu engagé wu si période boobu parce que Casamance dafa tàngoon donc finalement il a traîné. mooy 2007 bi ñuy ratissage ah, euh, contre les bases rebelles de Salif Sadio. voilà moo continué nag ba 2012 ñun bi ñu war a engagé wu. donc finalement en janvier 2012 donc de janvier 2012 à janvier 2015 j'étais en Casamance. voilà trois ans jour pour jour donc euh, à partir de la man sama démission les cinquante pour cent Casamance situation bi Casamance. situation bi Casamance wala la situation des troupes en Casamance. waaw troupes yi waxuma leen mais cinquante pour cent yi Casamance maanaam les population de la Casamance. ah bon dans ce conflit. les vingt pour cent nag la troupe maanaam les hommes ñun dund bi ñu doon dund. voilà les autres 30 euh, pour cent nag mooy Sénégal man fi ma am chance dem yëpp ak li ma fa gis parce que Casamance. d'abord sur la Casamance. Mhm. Casamance en fait euh, boo jëlee zone militaire numéro cinq muy Kolda ak zone militaire numéro 6 man dama am chance def naa zone yëpp donc Kolda laa jëkkee Carrefour Diaroumé ñun suñu chef foofu la nekkoon donc ñun on était dans des positions dispersées un peu dans la nature donc à partir de Carrefour Diaroumé nga ñëw vers Bounkiling village yi nekk si biir yëpp ay Mafango Djiniper Kilinko nga continuer dem ba beneen côté bi nga ñëw ay Kanjo Mangana Djuruur nga dem ba Ñamakuta et cetera le sud mooy vers Sédhiou complètement dans le sud après boo jugee foofu nga dem zone militaire numéro 5 à partir de ay Ñambalan euh, Brin Djibonker nga dem ba Oussouye après nga dellu si waat na la même chose secteur yooyu yëpp def naa ko mais boo ñëwee ci àll yooyu da ngay gis ne plus de la moitié de la population casamançaise nationalité gambienne lañ yor Gambie la ñuy jàngee Gambie la fajo yaaya Jammeh da doon jël ravitaillement bu bëri di leen ko jox. à quelle fin. dimbali leen y rien en fait. parce que ces populations là dañ leen délaissé. dañ leen délaissé waa donc da ngay nekk ci situation yoo xamante ni da leen di gis nga xam ne ñii en fait. elles sont laissées à elles-mêmes voilà te loolu même dans l'exercice du métier da nga koy gis ñun nekk nañ ci situation parce que ni ñuy positionné woo ay contextes yu wutale am na foo xamante ni militaires yi ñoo fa nekk ci biir àll bi avec les animaux am foo xam ni militaires yi ñoo fa nekk les populations ak les rebelles cas de figure yooyu bu présenté woo da ngay gis ne rebelles yi dañuy interdire population yi ñu ñëw si ñun mais population yi. ñu am contact avec les militaires te population yi lu ñu xam souvent dañuy ñëw si ñun nañu ñu ah gars yi ñu ngi tel côté lii ak lii la ñuy def pour ñun ñu moytu mais loolu bu ko rebelle yi gisee guddi rebelle yi dañuy ñëw si population yi di leen violer di dagg seen cër yi. Ah et en ce moment là on donne l'ordre aux militaires de ne pas bouger. te lii qu'est-ce qui donne l'ordre de ne pas bouger. grand commandement hmm. de ne pas intervenir quand les rebelles euh, exercent des sévices sur les sur, les populations civiles moo tax ma jàpp ne dafa am loo xamante ni nit du ko def ci ay caaxaan tey doo dem ba gratu capitaine nga am yenn faveur yi am yenn privilège yi mën a dem fu sori ngay tekki sa ndooma tànk mais dafa am loo xam ne gor moomu ko pour dëggal lu may wax nii nekk naa foo xamante ni bis ay population marché nañ ba ci gouvernance bi ñëw si gouverneur bi expliquer sen bu may wax nii gouverneur bi woo ma ma ñëw ma toog le gouverneur était en train de dire non l' état est en de faire ci état ma ne ko monsieur gouverneur l' état ne fait ñii tey sa njaboot lañ parce que yow yaa fi représenté président de la république tey bu ñu doxee ba fii nii di wax ne guddi dañ leen di def lii ak lii ak lii et les militaires n'interviennent pas su ñu demee ci camp bi wax ko militaires yi sax ñoom ñoo leen di wax ne que seen chef yi ñoo leen di jox ordre ñu bañ a bouger loolu rafetul donc c'est des populations yoo xamante ni. dañ leen bàyyi en fait comme ça. laissé à elle-même laissé à elle voilà man si livre bu ma bind tuddee ko la grande muette parle am na chapitre boo xamante ni titre bi maa ngi naan pour une autre option de la résolution de la crise l'absence de l'État qui crée une difficulté militaire. est-ce que mas nga jéem a poser question wala mas mas nga jéem a gëstu euh, lan moo tax bu loolu amee. Euh, nu mu tudd le le le commandement du ñu nangu yéen ngeen intervenir. est-ce que c'est pas pour protéger les militaires. non l'armée ne protège pas la population. moo tax foofu la ñu war a remettre en cause le déploiement des militaires en Casamance parce que. quand l'armée sénégalaise fortement déployée en Casamance. exactement ne protège pas les populations. non armée bu jege population. l'armée est fragilisée xam nga tey militaire par exemple pour faire simple militaire mënu def maintien de l'ordre parce que moom fetal mais tey boo duggee ci benn population boo xamante ni imaginel comme cas bu ma joxe nii y a une position militaire y a des populations y une position rebelle rebelle yi dañuy dugg si biir population bi yow mënoo leen xam ne position militaire yu bëri noonu lañ ko infiltrer bis bu ñuy song position yooyu dañuy xam ne tant d'effectifs ñoo nekk ci camp bi arme lourde yi tel point la nekk ak tel point dañ koy xam moo tax armée bu jegee population civile day fragiliser wu loolu moo tax ñun déploiement bi man bi ma gisee j'ai écrit man j'ai écrit plein de choses si affaire Casamance bi j'ai soumis ça à gis nañ ko boo demee DIRPA tey bu ñu ko lakkul contribution yi dul jeex après loolu laa jël def ko livre tuddee ko la grande meilleure part parce que les militaires effectivement étaient exposés et fragilisés mais par contre teguñu dispositif boo xam ne population yooyu mais dañ leen di wàllu moo tax ma ne l'absence de l'État qui crée ñu bëri ñi nga xamante ne tey dañoo nekk ay nit yu ne bokk Casamance dafa am lenn lu des seen xol parce que dañu mel ni dañ leen beddi da ngay ñëw ci dëkk man sama genre yi nga xam dañ bëgg sport da ngay génn yenn heure yi dem sport tas ak sa morom yaay mun la sama doom dellul si camp bi parce que dëkk bi neexul ça veut dire que les rebelles sont dans le village musuñu am hostilité envers nous mais man nekk naa position yu bëri yoo xamante ne lu ñu gis ñoom population yi dañuy ñëw ne ma ah ñun gis nañ lii ak lii ak lii ba si Kandiamanganaar bi may wax noonu j'étais la bas en 2013 un peu plus au nord am na benn point boo xam ne Gombol la tudd deux kilomètres si position boobu amoon na beneen village bu fa nekk rebelle yi dañ fay ñëw ñoom ñooy dox ba ñëw si yow ne la gars yi dañ fi jaar telle heure mais même loolu tey chef te doon l'ordre de ne rien faire. de les rebelles donc population yi dañ leen bàyyi noonu rek te léegi nag après dañuy walbatiku nag di leen taxer de rebelle alors que defuñu dara elles sont vulnérables elles sont suñu paree si loolu ñun suñu nekkin. non balaa ngi ñëw seen nekkin. Mhm. alors bu ñuy exercer les viols ak les sévices sexuels la sur les sur les populations après il y a pas d'enquête il a pas de euh, d'accompagnement psychologique. ah y a rien man j'ai rien mais dans vos bases dans vos cantonnements militaires souvent da ngeen di am ay infirmerie da di am ay sociologue ñun de dañu nekk position yoo xamante ne amul infirmier amul sociologue amul dara amul dara yow pour vous dire say homme sax boo génnewul sa xaalis jox leen ñu lekk duñu lekk. bu ñu feebaree fu ñuy. tu te débrouilles avec eux man maa doon génne sama xaalis di jëndal sama élément yi ay médicaments. donc à l'intérieur ça n'a rien à voir avec ces histoires de secret défense. on utilise l'omerta du silence pour tuer des gens si ay situations yu kenn xamul nit ñi dañuy dund ay situations yu metti mais population yi nan la ñuy gisee est-ce qu'il vous est arrivé de vous entretenir ak ñoom euh, ñoom nan la ñu gisee état de de de fait boobu dañ koy comprendre dañ koy accepter. bon ñun wala elles se ñun bu ñuy ñëw Casamance presque man je suis né en 83 conflit bi commencé na depuis laa ñëw foofu mais da nga ñëw fekk benn situation boo xamante ni c'est comme ça. moo tax ma ne ñoom ñëpp si seen biir xol dafa am lenn lu ci des cest à on les a abandonnés en fait voilà amul lenn du infirmerie du dara nekk naa si ay secteurs yoo xamante ni am na ay villages yoo xam ne bu ñu amee problème seen biir dañuy xeex ñii dee dee ñu gas suul leen et c'est tout. y a pas amul dara y a rien du tout ay frontières Guinée-Bissau Guinée Conakry Sénégal y a rien rien du tout 82 kilomètres de de Vélingara y a rien du tout. rien du tout donc lii nga koy gis man personnellement je suis allé voir mon père ma ne ko man lii du sama formation du sama éducation te li ma gis ni xaw ma lan la je ne me vois pas dans ces trucs là pas du tout da ngay ñëw di commander cent dix personnes ñu war leen habiller de la tête aux pieds gis nga cent dix personnes yooyu dix tenues lañ lay jox ak dix rangers nga la débrouille avec tes non si si je raconte ne keneen na ko raconte ce que j'ai vécu démissionné wu ma si ay caaxaan. voilà dix cent dix personnes. cent dix personnes te man j'ai réduit l'effectif on te donne dix tenues ak dix paires de rangeuses nga ne naa la am na élément yoo xamante ni boo jëndul yow sa alal nga jënd jox leen duñu ñu lekk am naa position bu ma nekkoon boo xamante ni dama am ay postes yoo xam ne da ngay jéggi ndox pour dem foofu. carburant boo xamante ne da nga koy def ci pirogue bi yóbbul leen seen alimentation sax duñ la ko jox yow yaay génnee sa xaalis sol carburant pour say élément lay. waaw mais boo nekkee commandant d'unité tu as un budget mensuel euh, pour l'alimentation ak lu yooyu. waaw je en fait ni ñu disposer troupes yi moo tax cest à da ngay ñëw par exemple bokk benn bataillon am beneen bataillon boo xamante ne da ngay am seen élément donc ñu jaxasoo voilà c'est ça va ko mais c'est un parce que nekk naa ak ay nit yoo xamante ni. on était nourri à 1400 francs par tête et par jour. par tête et par jour. mais 300 francs lañ leen doon jox ñoom par tête et par jour. attends le commandement dafa dégager 1400 francs. par, par tête, et, par jour ah. ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer mooy les chefs yi gérer cantonnement bi. ñoom ñuy dégager 300 francs par, par tête, et par jour. ñoom doo sa seetaan yow ak ñoom yéen a nekk si àll bi donc tu es obligé de les gérer c'est ça en fait. mais pourquoi loolu bu amee doo leen saisir l' autorité. autorité bi moom mooy def loolu di. non xam nga am na autorité bu mais moom am na un supérieur par exemple euh, y a chef de corps de de de, de de de du cinquième BAT. ils le savent. ils le savent. yow gën a xam. et pourquoi ils se taisent. Ah, c' comme ça mooy omerta du silence bu ma lay wax c' est comme ça waaw léegi nag kenn du ko wax en fait donc ñun bi ñu demee bay démissionné ils savent que ñun démissionné wuñu si ay caaxaan. tey man mënoon naa ne dama am problème avancement man sama promo yi maa si njëkk jàll capitaine 1er janvier 2015 aw ma problème avancement aw ma problème notation jotewuma kenn dara dara mais dama dem ma xam ne lii noo jëmul kër. alors ban jour wala à partir de quel moment nga commencé mûrir cette cette cette cette cet démission. waaw ah, man 12 janvier boobu noonu laa egg Kolda. bi ma eggee foofu j'ai commencé à écrire. du 12 janvier juste bi ngay bi ngay doog a ñëw. Kolda bi ma eggee foofu noonu laa def lecture du terrain. boobu engagé gum si laa njëkk a e, e, bind endormissement de l'armée et guerre d'usure si laa ko njëkk a bind. boobu génnaguma cantonnement bi mais j'ai observé l'environnement ma xam ne y a un truc bi ma engagé woo nag sama chef de corps il m'a averti par contre moom dafa ñëw sax ne ma yow lan moo tax nga ñëw fii j'étais surpris parce que c'est mon mu ne ma. mooy Maysa Sele. non no moo chef à Kolda. ba le premier chef. waaw damay bañ a tudd turam. mu ñëw mu ne ma lan ngay def fii nii. j'étais surpris mu ne ma jàng bi nga jàng man su ma ko jàngoon fii du ma fi ñëw. j'étais stupéfait mu koy déglu mu ne ma li nga jàng yëpp c'est correct tu as fait une bonne formation mais li nga jàng juutal ko ça va rien donner et c'est ça notre armée on va pas te donner les moyens et on va t'exiger des résultats. quand on te donnera une mission c'est ça notre armée j'avais pas compris parce que je venais d'arriver mais au bout de un an après si la xam ne ah ok kon kii il était en train de m'avertir par rapport à beaucoup de choses pas catholiques qui se font te kenn du ko wax donc man à partir de 2013 boobu laa commencé ne je pense que man je ferai pas carrière dans cette armée voilà te armée man su ma delluwaatoon tey di def métier armée laay def man armée je crois que diine rek laa teg ci kaw amul métier bu ma ko waaw ba tey jii nii moom laa mës bëgg et je pense que c'est le métier que j'aimerais euh, moom laay bëgg jusqu'à la fin de mes jours mais bi ma demee nag ba gis loo xamante ne baaxul je préféré me retirer comme li waa ji doon wax mu ne c'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source donc j'ai démissionné voilà 2013 boobu laa xam ne armée 2013 mais mais est-ce que mën nga rappeler wu euh, c'est-à-dire la décision ferme. Mhm. bi ngay rédiger sa lettre de démission. fan la la fekk c'était à quel moment. waaw man bi ma njëkkee def Kolda après au bout de deux ans j'étais affecté au Bad Blindé donc ñu bëri nag xamoon nañ ne que instant boobu man armée parrainage les hommes avec qui j'étais ak ñoo xam ne bon ils étaient sous mes mais ñoo ma ëpp expérience c'est-à-dire que ñoo ma mag jiitu ma armée dañ ma doon wax ne ma boo demee Bad Blindé dina changer dina tane mais quand j'ai atterri au Bad Blindé j'ai trouvé pire restaurant donc 2013 boobu ma jugee Kolda dem euh, Bat Blindé man foofu laa jëlee décision nekk c'est fini. Bat Blindé à à Dakar à Thiès. voilà mais bon base bi Thiès la mais on était tous engagés en fait parce que boobu on était dans le secteur de Oussouye ak gis euh, jàpp ADEAN quoi a partir de ñaa gis ba ADEAN secteur boobu lañ nekkoon mais man. Mhm. mais condition yooyu ngay ngay ngay décrire est-ce que tamit c'est pas un peu inhérente euh, ak yéen ci seen situation parce que y tellement de cantonnement militaire. Mhm. Euh, au niveau de la au niveau de la Casamance est-ce que ñëpp dañuy jànkoonteel euh, condition yooyu est-ce que c'était pas un problème de commandement euh, ci seen côté. c'était général man j'étais lieutenant j'étais capitaine vous interrogez tous les lieutenants tous disent tous li ngay kaas ci éducation di ko kaas feneen c'est la même chose ça change pas benn affaire bi la parce que dara comme li ngay wax mën na xew après nga xam ne bon lii c'est un cas ponctuel fii la yem mais c'est partout c'est partout mais peut-être que vous êtes tombé sur des chefs cupides euh, ñoo xam ne amuñu honnêteté parce que j'ai vu un élément mm-hmm. euh, bu général biram Diop doon waxtaan euh, avec des des des des des troupes de mm-hmm. de de l'armée mm-hmm. mu naan liñ koy li ñuy joxe. Mhm. comme moyen c'est pour euh, les hommes de troupe moom amul droit de, un chef amul droit euh, di ci jël dara. Mhm. wala di xañ. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy homme de troupe yi donc corps de métier boo dem tamit di nga trouver des di nga trouver des des des chefs yoo xam ne ils sont honnêtes voilà l'argent destiné aux hommes de troupe dafay dem mhm. mais y a d'autres corps aussi peut-être que da ngay trouver des chefs yoo xam ne ils sont mhm. cupides voilà ils sont pas ils sont et que mhm. ñooñu ñooy dagg gars yi ñaari chef yi nga xamante ne am naa leen si parcours bu ndaw bu ma def kii moo marqué c'est le colonel Maïssa Sélé Bidi aide de camp Macky de camp du président ak le colonel le colonel Moussa Diop Boub il a démissionné dem na yoonam ñooñu ay surdoués lañ les gens yoo xamante ni armée ñun pertul dara si ñun mais l' a perdu si ñooñu noonu. Ah mais Sessele est toujours là. il est toujours là il mais mais crème mu armée sénégalaise ci mën a bàyyi bàyyi nañ dem seen yoon ñoom ñëpp. parce que une situation générale en fait da nga koy lire nga koy gis on dit tous la même chose tous man am naa sama ancien boo man yàgg naa armée man j'ai un ancien boo xamante il est rentré il pas fait quatre ans mu dem yoon. y en a plein cest man sama cas lu tax mu bizarre man dama démissionné comme li may wax ñeneen ñi dañuy démissionné dem seen yoon comme ñi ñi bokk ci corps d'élite yu ci bëri dañuy démissionné Casamance moo tax ñu démissionné parce que c'est une situation boo xam ne finalement dañuy dem ba duñu comprendre dañuy démissionné dem seen yoon mais man je me suis dit que bu fekkee ne ñu ñëpp dañuy démissionné dem tamit du sotti man j'ai démissionné j'ai décidé de me battre parce que dafa man sama engagement politique foofu la jógee moo tax ma jàpp ne nit doo engagé aussi si base boo xam ne da ngay mer wala leneen. mais danga doon waxtaan ak te hommes là euh, ci ci situation yooyu. Euh, comme situation yi tax ma démissionné. on le vivait ensemble. on les ensemble da ngay nekk si situation yoo xamante ni yàgg ñoom yéenay tëdd yéenay yeewu yéenay demandoo patrouille yéenay def léegi vous partagez tout ensemble xam nañ ko donc nag li leen di metti ñoom mooy ñu gis ñu ñun ñu ne dañuy bàyyi. parce que après ils se disent que ok bu fekkee ku nekk bu ñëwee gis ne kiiwul rek mu dem finalement du ma sa baax voilà maintenant pour li le fait que ma cité ñaari officier yooyu nga xam ne samay chef la ñu woon du ñëpp ñoo bon du ñëpp ñoo bon mais la majorité tey ñoo tax li xew armée di xew armée mais boo doon situer responsabilité yi le budget de l'armée est voté à l'Assemblée nationale il pas de débat. C'est boo doon situer responsabilité yi ban niveau nga koy nga koy situer euh, niveau du haut commandement militaire niveau du ministère des forces armées ou niveau du président de la de, de la république ñett yëpp dañ ci am wàll parce que man li ma nekk di souligner nii gëm naa ne général Babacar Gaye bu nekkoon semga ñun duñu bàyyi c'est le meilleur semga dans l'histoire de l'armée sénégalaise général Babacar Gaye mi nekkoon Semga te ñu euh, démettre woon ko à la à la suite de de, de du naufrage du bateau le Joola exactement c'est le meilleur Semga dans l'histoire de l'armée sénégalaise comme mu nekkoon Semga ñun duñu bàyyi mais sa sele mi wax naa ko moom su fekkoon ne man fu ma dem am chef bu mel ni moom du ma bàyyi Moussa Diomb mais da ngay ñëw nekk officier am ay chef yoo xamante ne tanewuñ la du ci jàng du ci dara loolu aussi ça pose problème nit ñi bu ñuy def seen formation am yenn niveau yi mais c'est parce que arrivé à un certain moment mais ñun dañu jàngal ne le chef c'est celui que l'on reconnaît être meilleur que soi mais am na yenn situation yoo xamante ni bon on est confronté à loo xamante ni kenn mënu ko expliquer donc les hommes en pâtissent tout le monde en pâtit mais euh, l'État du Sénégal semble mettre des moyens énormes à la disposition des forces armées. un budget de plus de deux mhm. milliards fan lay dem. ah du wax nañ fii ne jël nañ xawma ñaata milliards pour l'emploi des jeunes les gens sont dans les rues ñu naanu ñu liggéeyuñu yooyu moom la ñuy wax nii rek dafa am benn kii boo xamante ne danaan there is no truth in the news cest à li ñuy wanee télé ak li nekk ci suuf du benn bokkul c'est différent voilà dañ koy wane nii pour le folklore mën naa la jox exemple yu bëri yoo xamante ni da ngay gis tu dis que non voilà ñii moom ils sont aux mais à l'intérieur il passe des choses que mais comment cela se fait que l'armée depuis qu'elle a investi le territoire euh, du sud voilà disons que il y presque quatre-vingt-dix pour cent euh, de de de de réussite lan mooy expliquer euh, le décalage entre les moyens ak résultats yi ñuy gis sur le sur le terrain. kon léegi la moo tax armée continue déployer wu foofu ba léegi ay base rebelle di am ba léegi pourquoi c'est ça en fait kenn xamul lan lañ nekk mën nga toog un an Casamance lépp na tekk doo xam sax lan moo xew. yow mi nga xam ne militaire ne chef militaire doo xam sax la ma lépp na teg nga jékki-jékki benn jour rebelle yi xiif génn commencé di braquer à gauche à droite et cetera donc c'est dafa nekk loo xamante ni daal pour man on a pris en otage des populations du sud ci guerre boo xamante ni lu ñu waroon jeexal la bu yàgg mais personne ne comprend pourquoi on s'est enlisé comme ça loolu mooy wax ci mais on s'est pas enlisé nu mu tudd les les les rebelles ah, y' a pas une seule portion du du du territoire qui n'est pas contrôlée par l'armée du dégg nga armée di wax ne dañoo defoon opération xaw ma ne et cetera pourquoi ils ont fait des opérations armée sénégalaise 81 ba tey ñu ngi def opération armée sénégalaise bu ñu leen bàyyi woon ñoom kese politiciens yi génn ci lii guerre bi jeex na bu yàgg ñaata yoon nga fiy dégg opération yoo xamante ne dañuy dem ba encercler ay bases rebelles ordre jóge ci kaw présidence ñu bàyyi. avec les morts qu'ils ont avec les blessés qu'ils ñu repli loolu kenn mënu ko expliquer waroon na jeex bu yàgg mais boo demee Casamance da nga xam ne lii vraiment toog nañ di guerre guerre boo xam ne pour man amul sens te politique kese pendant ce temps ñu jël ay population en otage voilà ci yoo xamante ni mënoon na ñàkk donc c'est le sort des populations de la Casamance moom moo tax nga bàyyi ak les conditions dans lesquelles euh, vivent les les les hommes de troupe. mu leer ma ne lii lu lu jaaduwul la en fait moo tax ma tudd général Babacar Gueye nekk na fii yu bëri yi chef yi def kenn ñemewu ko def kenn ñemewu ko def man sama ancien bu mu lay xanoon dafa démissionné lieutenant mais loolu yow sa ravitaillement bu ñu la war a jox ñu jël les deux tiers jox la ko nëbb leneen yow sa chef si boppam moo lay sanctionné mais benn supérieur du ci wax maintenant tu es indiscipliné mu jeex jeex na. on a subi des des des défaites douloureuses euh, à Babonda et Medina Mankagne nga foog ne de telles pratiques bokk na ci li ci ci li indi loolu. waaw ah, mooy infiltration yu ma la doon wax da ngay dem mission mais yow mission yooyu noonu ngay dem mais dañuy wax ne que yaa ngi ñëw si yoon bi fii nga toll ak fii ak fii. moo tax ma ne l'armée ne protège pas la population si côté boobu la en fait militaire borul jege population si métier loolu liggéey police ak gendarmerie mais si l'armée le fait elle devient fragile voilà vous n'êtes pas en sécurité donc yooyu yëpp loolu moo koy indi embuscade yi am tout dañ lay dañuy renseigner nit yi que convoi bi mi ngi ñëw fii lay jaar comment on peut quitter aussi facilement le métier bi nga xam ne moom mooy moom mooy sa sa passion. Mhm. Euh, à la base lan moo taxoon nga engagé wu dans le dans les forces armées. bon man moom je voulais être médecin. man ma nekk xale non non non médecin tout court. waaw ah, man dama bëggoon wax ne damay faj. voilà je vraiment faire quelque chose qui soulage les mais ma commencé jàng j'ai vu que en arithmétique j'étais pas trop trop bon voilà j'étais faible en maths et cetera léegi finalement je me suis dit que il faut ma wut métier boo ni bon du nekk peut-être médecin. mais dina nekk loo xam ne finalité bi service lay doon ci nit yi donc si la nekk comme je peux plus être médecin pour sauver des vies je décide de donner ma vie man foofu laa tànnee métier militaire bien que nag sama papa militaire la. donc c'est un métier de substitution. voilà euh, exactement c'est pas du du passion boo xam ne danga nga grandir. après passion bi nag fool parce que j'étais très jeune xale laa woon dama doon jàng. dama doon jàng ay à partir de sixième secondaire je savais bon cinquième et cetera quoi donc très tôt des armes. voilà avec aussi l'influence de l'environnement Samba militaire la woon donc il nous parlait des grandes écoles militaires on suivait tout pratiquement de l'armée donc noonu laa ko kiiwee ba finalement c'est devenu pratiquement une religion quoi voilà. parce que xam nga passion. dafa dafa fort. Euh, su ma jëlee l'exemple du métier de de de, de journaliste. les journalistes vivent des situations hyper difficiles. Mm-hmm. Euh, daanaka seen effort sax. Euh, rétribuer wuñ leen à la à la hauteur des efforts yi nga xam ne moom la ñuy consentir mm-hmm. da ngay nekk ci organe de presse parfois il y a des situations très difficiles mm-hmm. mais parce que gars yi dañoo dañoo am une passion en bandoulière mm-hmm. euh, dañuy dañ dañuy dañuy dafay mel ni dañuy xaw a accepter euh, dañuy convaincre seen bopp sax que ça va bu ñuy souffrir tamit Euh, bu ñu amee benn information bu ñu amee benn scoop mhm. voilà ils sont contents et ils oublient la tout la souffrance mhm. passion noonu la noonu la mel ci nit mhm. nit ki mooy gis jafe-jafe yi ngay jànkonteel mais en fait yow mi nga xam ne danga nga passionné gisuloo jafe-jafe yi loolu moo tax ma lay laaj ndax euh, armée moo nekkoon sa passion parce que on ne quitte pas sa passion wala on on ne quitte pas son amour comme ça li nga wax nii dafa dafa am importance parce que dafa am ñoo xamante ni ils sortent du prétendant militaire bac mention bien la ñu am très bien wala ñu génnee dans les écoles là ay Limamoulaye et cetera et les autres écoles du Sénégal ñu recruter leen yóbbu leen dans les grandes écoles militaires ils sont très brillants et surdoués gis nga ñooñu au bout de vingt cinq ans man bi ma taxawee di leen xool j'ai pas envie d'être comme eux c'est-à-dire que l'armée n'exploite même pas le dixième de notre capacité même pas le dixième man am na ay anciens yoo xam ne ñoo ma gën a brillant foofu mais tey boo leen xoolee non l'armée armée dafa dafa leen casser en fait parce que xam nga métier yi seen nature du benn quand on demande de te taire silence boobu ça a ñun on est formé te du formation yii nii on est formé cest à que pour nga duggoon ñu ci environnement boo xam dina ñu jaaxal loolu yombul façon situation bu nekk dina la ci dugal voilà lu nekk dina la ci dugal pour ñu casser la mentalement c'est pas facile mais nit aussi da xam sa valeur moo tax ma ne la am na ñoo xam ne bi ma leen xoolee man j'étais lieutenant j'étais capitaine j'avais pas envie d'être comme eux mu leer ma ne ñii bi ñu leen di recruter j'étais pas plus brillant que ñoom sax buñ ma gënul brillant mais y a des choses à l'intérieur il faut nga dugg ba ci biir soo duggee nga koy gis. vous pas finalement fait pour euh, le métier des armes ah je ne que formation bu fekkoon ne am na benn limite bu maam am formation dina ko génne pas limite mais mais mais peut-être que nekkul woon sa sa prédestiné mhm. parce que armée on vous appelle la la la, la grande muette mhm. boo ci duggee da nangoo noppi mhm. euh, da ngay nangu euh, condition yi ñu lay tegal et yow da nga nekk nit koo xam ne euh, nit ku libre nga et qui a voulu euh, vivre avec cette liberté là ah, et donc vous n'étiez pas fait pour l'armée parce que grande muette bi en fait du dara c'est la protection du secret tey dafa am yoo xamante ni c'est pour la préservation de la stabilité nationale loolu kenn du ci wax ak lu mu mënti doon ñun am na yoo xam ne tey boo ko waxoon fii àdduna di tukki donc yooyu doo ko wax donc amuñu problème ak loolu mais am na yoo xamante ni man dama jàpp ni mënoo egg yenn niveau yi tey te un officier la dignité d'officier dafa am donc boo eggee yenn niveau yi am na yoo xam ne yow waroo ko waroo ko accepter lépp luy injustice lépp luy maltraitance mu leer la ni lii juridiquement c'est pas bon yow waroo ci dugg parce que ay doomu aadama kese lañ duñu ay rab duñu ay jinne donc dangay gis ay nit ñu nekk si situation yoo xamante ni mais da xam ne lii c'est pas bon te mu nekk loo xam ne lu mën a ñàkk la voilà donc ay population yoo xamante ni vulnérable fragile mais à la limite elles sont abandonnées donc boobu statut officier bi lan lay jariñ ça sert foofu omerta amu fa benn jariñ le silence ne sert foofu noonu donc j'ai pris la la décision de mais lan mooy solution bi. Mhm. parce que euh, souvent on donne l'exemple des magistrats et des officiers de l'armée yi nga xam ne en termes de traitement euh, nu mu tudd dans les années soixante soixante-dix ils étaient presque au au, au même niveau euh, aujourd'hui un magistrat mën na fay cinq officiers de de de de l'armée mu nekk une injustice salariale. Euh, da ngeen di dund injustice boobu ci biir bu ñu génnee aussi bu ñu retraité aussi euh, les pensions de retraite même si ñu ngi koy amélioré ba tey ça laisse à désirer euh, bu ñu blessé woo ba ñu réformer leen euh, seen situation aussi vraiment ça te ça fend le cœur mhm. yàgg dañ fi gis ay militaires blessés les orphelins militaires daanaka amul benn prise en charge in boo xam ne dañ ko institutionnaliser daf leen des pupilles de la de la de la de la nation mm-hmm. euh, lan mooy solution bi yow mi nga xam ne dugg nga ci biir tey nga investir l'arène politique tey yow boo doon proposer un projet de vie euh, pour les forces armées lan ngay proposer profilage laay njëkk ko commencé profilage c'est-à-dire officier du ñëpp ñoo koy nekk tey am na ñu bëri ñu nekk ay officier mérito wu ñu nekk officier waaw foofu la ñuy commencé donc profilage boobu noonu boo ko defee ba pare après nag nga teg maintenant la compétition cest dire que on élimine personne les gens s'éliminent à travers leurs propres limites moo tax j'ai cité le général Babacar Gueye c'est le meilleur officier de l'armée à son époque le meilleur. moo tax c'est le meilleur SEMGA de de tous les temps de tous les temps. quand il est arrivé à la tête tout est rentré dans l'ordre tout amul xuloo amul xeex chacun fait son travail correctement soo liggéeyul mu wàcce la def ko sa moroom les gens étaient suivis. lépp dafa jaar yoon ci armée donc il faut juste que ñu def de bonne sélection voilà tey dañu ubbi loo xamante ni ñëpp dañ ci am accès moo tax tey je pense que ci domaine yëpp la tout le monde peut être n'importe quoi alors que loolu c'est pas normal donc profilage boobu la ñuy defar bu ñu defaree profilage boobu rek le reste va suivre naturellement. tout le traitement les, va les suivre les conditions les moyens. tout va suivre. Euh, la retraite l'avenir. tout va suivre la réinsertion. tout va suivre moom il avait commencé malheureusement il a fait deux ans et demi trois ans ñu wàccal mais il avait commencé tout sax tout sax il a mis les bons officiers partout et ça marchait comme sur des roulettes loolu kese la. mais xam nga tey c'est parce que moom nga sa bopp moo tax nga mën a wax lii. Mhm. Euh, est-ce que du loolu moo tax l'armée di bañ euh, les les les départs dans ces dans ces dans ces rangs. parce que tey tamit si tout le monde se met à à dénoncer les conditions de vie les conditions de de de travail dans l'armée aussi loolu ça peut susciter benn colère euh, voire même benn frustration au niveau des ran est-ce que du loolu bokk na ci li tax boo leen bëggee démissionner à un certain niveau de service ñuy bañ. bon nit ñi ñu ngi démissionner quand même nit ñi ñu ngi démissionner di dem defi leneen mais man mon cas c'est que dama dugg ci politique loolu moo tax affaire yi compliquée. mais dëkk day dox am na benn général boo xam ne jiite na armée dafa ne Sénégal yàgg-yàgg dina benn officier bu génn teg ndëndëm si langue politique bi pour laaj réew mi il l'avait prédit tey génn na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm il l'avait prédit donc egsi nañ ci loolu tey je pense que dafa am yu bëri yu xew mais on n'a pas pris le temps d'analyser ça correctement donc nag loolu moo nekk di xew nii ba situation récente yi am niñ donc lépp dafa annoncé wu mais on n'a pas analysé dañu toog rek di xool ba xëy na tey yenn affaire yu bëri di tàkk léegi nag nit yi commencé di jaaxle mais Sénégal foofu la tool mais profilage boobu ngay ngay wax parce que au début c'était très difficile. Mm-hmm. Euh, doon nañ doon xëy na ragal nga révéler des secrets. Mm-hmm. Euh, nga nga nga livrer euh, des des ponts de de de secret de de de de l'armée. si si waaw c'est normal mais man ñi nga xamante ni ils m'ont formé ñi nga xam ne ils m'ont encadré xam na ne yooyu du ma si non ñu on a été comme ni on a été formé donc formation boobu dafa am lenn lu bëri lu muy def génn ñu pour yaax non bu doon loolu la livre bi may wax la grande meilleure part moo publié ko mais bi ma ko bindee des spécialistes de questions de sécurité ñoo ko liir ñu nekk Harmattan bi ñu ko liiree ñu ne ma lii waroo ko génnee c'est bien mais waroo ko génnee man leen noo man binduma ko pour yaax mais dama jàpp ne képp koo xamante ni da nga nekk euh, spécialiste ingénieur euh, magistrat et cetera fépp fu ñu la embauché au bout de six mois tu dois produire alors man j'aime écrire voilà parce que bind mooy tax mbir di avancé donc loolu la woon mais bi génnuñu pour yàq bu doon loolu la kon leneen la ñuy wax du ñu du ñu jaar par voie légale pour démissionner. xam nga yaayu. Abdou Aziz euh, Ndaw ki mhm. euh, bi nga xam ne dafa emmagasiné woon euh, beaucoup de frustration mhm. mu bind livre après il s'en est suivi li xew mhm. y a eu le cas du commissaire Keita mais moom il n'a il n'avait pas le choix euh, eu yow et y a aujourd'hui le, capitaine Omar Touré de la section de recherche lan mooy différence bi entre yéen ñaar waaw effectivement foofu noonu il faut ma def benn précision capitaine la comme man tenue bi ñoo ko bokk mais couleur bi moo ñu wutale moom gendarme la yow militaire la donc euh, la gendarmerie c'est la colonne vertébrale de la République la gendarmerie est présente au Sénégal depuis 1843 donc gendarmerie nationale dafa nekk corps boo xamante ni elle est au carrefour du militaire et du judiciaire donc la gendarmerie est héritière des maréchaussées donc ñooñu ñoom ñoo doon topp tout ce qui est contrebandier les coupeurs de route les bandits de grand chemin donc tey gendarmerie nationale moom kaawam lu tax mu compliqué c'est que moom c'est un officier de police judiciaire donc booy xool histoire gendarmerie loolu moo tax la gendarmerie est la maire des armées moo tax la gendarmerie est devant et à droite de toutes les armées bu ñu demee 4 avril bu ñuy décorer nit devant le drapeau de la gendarmerie lañ koy décorer bu ñëwee taxaw il s'incline devant le drapeau de la gendarmerie nationale donc corps la boo xamante ne tey moom mooy pratiquement lépp loo xamante ni dafa ëmb état gendarmerie moo koy tey boo xoolee les institutions pratiquement yëpp ñu ngi koy kii te gendarmerie dafa am deux missions essentielles quelque que soit nag spécialité wu gendarme deux missions yooyu benn bi mooy la sécurité des personnes et des biens ak le maintien de l'ordre mooy première mission bi deuxième mission par contre c'est veiller à l'exécution des lois et des règlements donc tey lépp loo xamante ni procédure judiciaire la c'est secret donc bu ñu la confier dara yow boo ko mënul il faut te taire voilà léegi nag. il faut te taire il faut te taire. et partir et partir mais tey waroo tey ñàkk respecter ay textes ak lu mënti xew. loolu moo compliqué da parce que lépp loo xam ne procédure judiciaire la encore une fois c'est secret léegi nag moom pour sa dignité d'officier et pour l'honneur de la gendarmerie am na loo xam man du ma ci egg parce que bi mu demee ba sës il n'a pas parlé de sa formation il n'a pas parlé de l'institution qu'est la gendarmerie mais il a parlé de sa grand-mère foofu valeur familiale day ñëw cest que am na lenn lu mu gëm léegi nag contexte bi xew ba moom mu def li mu def après gëm naa ne gendarmerie yi prendront les dispositions nécessaires pour euh, pour ça. mais dama ne lan mooy différence bi entre yéen ñaar. waaw man j'ai démissionné par convenance personnelle moom par contre il a pris position dans une affaire voilà. avant de démissionner. Non, avant non, de déposer une parce que après man bi ma gisee ñu ne gendarmerie nee na bindul demande de démission parce que effectivement yow temps bi ñu la bi nga xamante ni yow lañ jox enquête. ak affaire yi ni mu tëddee da ngay xam ne fii y' a pas eu le temps de parce que moom dafa ne rek il a parlé à sa pour leur dire qu'il se faisait qu'il suivre donc gars dañ ko doon topp et cetera il était sur écoute moom loolu la wax. après nag par la suite laa gis mu rédiger démission boo xamante ni hiérarchie boobu dañ ne si réseau sociaux yi lañ ko yëgee ah, loolu c' est une faute grave parce que comme li ma wax sànq jusqu'à l'âge de 65 ans yow amoo droit wax si public. moom dafa dénonce dafa dafa dafa dafa décidé quitter. Mhm. au début ñu bëggoon ko comptabiliser la désertion mais il n'a pas fait les les, les six jours mhm. euh, pour que ñu considérer ko comme une désertion ensuite il prend position sur un dossier mhm. euh, politico-judiciaire dafa commettre faute ah, dafa commettre faute ban faute mooy position bi may wax mooy ni eh, mu position moo tax ma ni il a pris position donc xam man j'ai démissionné ma dama dem gis loo xamante ni bon pour man jaaduwul ma bàyyi de mon plein gré moom nag dans une affaire la ñëw nag jël position yow loolu war ko def voilà ba pare aussi média yi média yi nga ñëw commencé di wax alors que yow amul lenn luy atte sa sa démission wala wala leneen loo xamante ni tey mën na dindi lépp lu la lii ak service bi nga bokk te mu nekk service boo xamante ni comme li ñuy wax on est soumis à l'obligation de réserve donc faute yi foofu la nekk en fait moo tax ma gisee ay journalistes dem di wax ak moom j'ai dit que bon ils sont en de l'enfoncer en fait voilà. mais lan lañ ko mën a lan lañ ko mën a lan lañ ko mën a toppee. waaw loolu moom man su ba sañoon du ma si wax dara parce que bon c'est des faits graves. mais Après, je veux dire euh, mm-hmm. selon le code de de de, de la justice militaire. Mm-hmm. Euh, lan lañ ko mën a yan chef d'inculpation moo mën a peser ci moom. xam nga man déjà bi ma bindee demande yi ma war a bind yëpp ba lépp xew si quand j'ai quitté la ma ñëw Sénégal dañ ma arrêté. bi ñu ma arrêté 60 jours arrêt de rigueur. lañ la defaral voilà moom j'ai vu qu'on lui a mis jours voilà ça veut dire la demande est en train de suivre son cours parce que hiérarchie bi day jël ku ci nekk dafa am benn taux bu mu lay defal jusqu'au ministre. là c'est le taux du ñu ne c'est général. donc le ministre tamit am na. voilà parce que man 60 jours arrêt de rigueur yooyu c'est le ministre. voilà moo tax après bon sama situation bu mu commencé bon le président de la comme il s'est engagé en politique mais moom yenn chef d'inculpation moo mën a peser ci moom. moom sama si l'on sent non pas xam naa ne mënuloo juger de cette affaire là. Si, mais bu ñu basé woo ci code de la justice militaire. Mm -hmm. la, voilà yi mu def sa s'assimile à à à quel. quel quel xam ne boo ko dafa diis en fait. termes yi dafa diis. moo tax man bëgg. mais allez-y ça peut aider à comprendre voilà 60 de rigueur les gens ont dit mais c'est xam nañu loolu. voilà parce que man moom bi ma gisee kii yooyu mën na dem bàyyi haute haute trahison. mën nañu ko ba si euh, traduire euh, pour haute trahison. soo gisee ma wax historique gu gendarmerie loolu la parce que tey ñoom ñooy justice militaire. kiy jiite gendarmerie c'est le directeur de la justice militaire soo gisee ma ne ñun ñaar ñoo bokk tenue bi mais couleur yi du benn tey moom li nga xamante ni man mën nañ ma ko baal sax moom mënuñu ko baal parce que moom c'est un officier de police judiciaire dafa mel ni nga jël benn avocat jël koo xamante ni c'est un citoyen lambda donte nee na nul n'est censé ignorer la loi tey kii dul avocat am na yenn kii yoo xam ne bu ko defee mën na am circonstance atténuante mais avocat bi am na yenn kii yoo xam ne ko defee duñ ko ko parce que part du principe qu'il maîtrise la loi. mais moom bu déposer démission sax euh, du tere la procédure disciplinaire. Si, euh, et pénale voilà. euh, day suivre son cours parce que am na procédure voilà. disciplinaire. Euh, qui va décider de son statut mmh. au niveau de la gendarmerie. mais aussi am na procédure pénale boo xam ne mën nañ ko enclencher euh, en cas de de haute trahison. Eh effectivement donc ay procédures yu bëri la yu nekk ci biir mais bi nga xamante ne procédure disciplinaire bi la moom de suivre son cours boobu day continuer ñoom ñi nga xamante ni liggéey nañu ak moom aussi peut-être am nañ détails yu ñu amul parce que tamit boo dee liggéey ba ñu wëlbatiku yow di la topp maanaam jëla la mettre sur écoute et cetera c'est pas évident parce que man loolu dund naa ko pendant quatre ans. mais tamit bu ñu lay topp mbaa ñu mettre la sur écoute tamit euh, est-ce que ñoom euh, la hiérarchie euh, de la gendarmerie ou les renseignements est-ce que amuñu tamit lu ñuy lëmbëj. non effectivement duñ ko def par hasard bu ñu parce que man bi ma gisee rek mu wax ne dañ koy taw dama ne kii am na lu def. c'était automatique. par parce rapport que, à bi mu doon. voilà parce que homme de tenue yi du ñu sànni seen élément noonu duñ ko def. parce que yéen da am da ngeen am ah, sax immunité de juridiction exactement suñu demee ba def loolu rek parce que am na leen lu tax peut-être que nag nit ñoo ko dul xam mais dañ koy xam da xam ne lii am na leen lu tax ñu wëlbati ko di ko topp di ko soupçonné c'est évident. alors il a deux choses. Mhm. Euh, yu ñu mën a gisee affaire bi euh, soit. moom il a il a il a vécu des pressions euh, gis ay injustice euh, gis loo xam ne peut-être que dafa salir son honneur de de de gendarme d'officier assermenté mu décider jeter l'éponge mu craquer décider jeter l'éponge euh, beneen éventualité bi mooy qu'il ait fait des choses qu'il se reproche des choses et que mu jéem a xool nan lay génnee par la grande porte en se martyrisant mm-hmm. effectivement parce que man je pense que dans le cadre de de son travail d'officier yaakaaruma foofu mu problème mais si enquête bi effectivement peut-être am na yenn yu ci xew yoo xamante ni moom mën na ko reprocher boppam et que après il dit bon ok de toutes les façons lii moo fi sës xaar ma def ko parce que quand je l'ai vu investir les médias man je l'ai interprété selon mon histoire parce que man dund naa ko man j'ai vécu des situations yoo xamante ni j'en ai jamais parlé mais xam ne lii facilement mën na la pousser à des extrêmes xale nga def loo xam ne cest nga def loo xam ne waroo ko def. nga suicidé wu nga craqué waa exactement. voilà nga def loo xam ne nga entré en rébellion voilà exactement mën na la poussé nga def loolu. waaw parce que man je l'ai vécu en quatre ans j'ai vécu des choses yoo xamante ni. mais des comme des choses comme lan. waaw man bi ma bàyyee parce que tamit euh, bi ma bàyyee man dama dugg si politique donc boo defee loolu dafa am luy xew le l'armée la police et la gendarmerie dañuy créer benn cercle autour de toi. la justice ñëw teg beneen cercle léegi loolu pour ñu def ko avant ñu koy def dañuy xool sa dimension politique parce que euh, la dimension politique de l'État c'est l'ultime définition de la politique parce que bu ñu nee la politique c'est l'art de gérer la cité loolu c'est la définition poubelle voilà donc l'ultime définition de la politique boobu dañuy xool yow boo waxee est-ce que dina am effet ou pas donc dañ lay commencé di topp man ça fait quatre ans que l'État m'empêche de travailler. ah bon waaw fu ma dem déposer sama CV ak ñoo xamante ni. 4 ans qu'on t'empêche su ma demee déposer sama CV wala ñoo xam ne sama profil intéressé na su ma ñëwee ñenn ñi ils ont eu te de me sortir des documents yoo xam ne day wax kii il faut pas l'embaucher waaw am na ñu bari ñoo xamante ne ay autorités Sénégal fii ñoo xamante ni toog naa ak ñoom waroon liggéey ak ñoom ba mu officiel mais dañ ci génn. après loolu je le comprends fépp fooy dem dañ lay topp da ngay dem resto ñu lay topp di la photo di la def ay chantage. chantage humain voilà man de su ma demee émission wax ba pare dañ lay woo di la proposer xaalis nan la sa engagement politique bàyyi ko nga dem on est prêt a mettre temps sur la table avec tous les papiers qu'il faut. mais ñan ñoo lay proposer loolu. dama jàpp ne état moo koy def parce que si niñ lay approché dangay xam ne lii du n'importe qui moo ko mën def. waa benn voix may wax ak yow góor wala jigéen ne la diw nga ne ah ñu ne la ok ñun ba tey notre offre tient on te propose tant avec tous les papiers pour nga dem ay manifestation su amee centre ville man dañuy couper samay puces. ah bon mënuloo communiquer dañuy couper samay puces. voilà lépp li am ay aar li ñu boog et yëpp yëpp man ñu couper samay puces voilà. mais dinañ la bàyyi nga déplacé wu. non tant que manifestation yi passé wul soo génnee da ngay tase ak nit yoo xamante ne dañ la naan diw. amoo droit dem si centre ville ba temps telle période. Ah c'est pas contre toi mais amoo droit dem fa man leen effectivement je comprends. donc dangay ngay ñoom nii rek mu wax ak yow wax ak yow. donc ce des agents de renseignement. si si ñoom émission dem naa émission yoo xamante ni dañuy ñëw taxaw di jël ay photo am na boo xam ne 2STV la woon je devais sur le plateau à 7 heures mais 6 heures 30 boobu dañu ñëw di ñu photo ba ñu nar a xeex ak ñoom foofu coono yi nag bi commencé jóg ak les passants ils ont accepté de supprimer les photos voilà. donc xamoon naa ne lii man daf may xaar léegi nag lu problème du lii ñu may def nii mais le problème mooy lan moo tax ñu ma koy def parce que tey comme li nga wax sànq boo gisee un officier de l'armée qui démissionne capitaine mu ne il président la république mais kooku état danaan kii lan moo ko def loolu lii est-ce que amul ay nit yoo xamante ni tey dañoo nekk à l'étranger bëgg jaar ci moom pour jot suñu réew. nekk ci ginnaaw la donc état. il faut mu def ko pour deux choses benn bi c'est pour assurer la sécurité des Sénégalais mais ñaareel bi aussi gis nga président de la République chaque jour c'est ay complot ay manipulation ak ay pièges lay yeewu si lay yendu ci lay fana c'est ça la fonction en fait donc yow dañuy tester sa capacité intellectuelle sa ingéniosité sa force mentale sa force de résilience yooyu yëpp dañ koy tester donc c'est pas contre moi moo tax ñi ma nekkal ñëpp suñu waxee ma ne leen il faut juste faire attention. donc euh, ma, malgré ennui ak malaise bi muy générer euh, da nga comprendre que c'est au nom de la sécurité nationale. effectivement moo tax man musuma ko waxee musuma ko doxee man je vis avec la pension de mon père sama papa moom mu ni ma mais naa la sama pension de retraite lebalu ma la ko dem la ko may mes frères cotisent et me donnent de l'argent de sénégalais yoo xamante ne tey ñi ngi France États-Unis Suisse et cetera ñoo may soutenir. donc bi may dugg ci engagement bi je savais que lii moo ma ciy xaar et c'est le prix à aussi pour diir que ba ma koy def bu doon post walla xaalis armée laay toog parce que j'allais avoir des post nationaux et internationaux et de l'argent mais du loolu dama xam ne heure engagé wu jot na je me suis engagé pour mon pays lu ma ci am nag ma xam ne noonu la donc là mënuloo liggéey amuloo benn revenu. voilà à part la pension bi la sa papa may. ak peut-être les les parents et amis yi lay soutenir. exactement donc c'est le prix à moo tax ma ne su doon ne frustration. wala kii am na assez d'arguments assez d'éléments pour être quelqu'un de d'irascible wala koo xamante ni voilà il est très très extrémiste sur ses positions mais non am na engagements yoo xamante ni boo ko jëlee yenn attitudes yi waroo ko am. parce que boo amee yenn comportement yi tu perds en fait la conscience du poids de la responsabilité de ton engagement te fii ce qui est important c'est le mot poids parce que lu nekk dafa am prix en fait voilà moo tax man même mon épouse bi ma. mais mais jusqu'à présent euh, yaa ngi subir situation yi ñu lay topp di la. fii ba léegi ba léegi maa ngi subir je vis avec ça moo tax mon épouse laa ko doon ma ne ko on n'a pas divorcé mais oublie-moi. parce que maa ngi jël engagement boo xamante ni si li may dem nii. comment ça on n'a pas divorcé mais oublie-moi. c'est-à-dire que dama ko doon préparé. si situation vous étiez marié. bi ngay vous êtes toujours marié. je suis toujours ok léegi nag pour préparer ko parce que dafa am kenn ku ne y a pas plus dangereux que quelqu'un qui fait quelque chose li ignore am na yoo xam ne boo koy def yow war nga xam li lay xaar nga préparer nit yi en conséquence loolu moo tax ma ne ko maa ngi dem dugg si loo xamante ni moo gën a guddi moo gën a lëndëm guddi. ma ne ko nag xaw ma ñaata temps lay durer pour que jant bi jóg mais xamal ne lii may dugg nii lu compliqué la te yow bis boo toogee ba mun a toog a supporter tu es libre nga dem. vous êtes toujours ensemble. on est toujours ensemble. des enfants. deux enfants une fille de sept ans un garçon de quatre ans voilà léegi mu ne ma de toutes les façons quand tu avances dans l'obscurité c'est la lumière de la vérité qui t'éclaire donc suis la lumière et avance tant que tu avances boo tourner di ñu gis et c'est comme ça. donc j'ai un projet de société je travaille avec beaucoup de gens tey en quatre ans j'ai rencontré plein de Sénégalais j'ai beaucoup de choses yoo xam ne mënoon naa toog ba commandé armée sata du bokk xam donc sama m'a ça m'a réconforté li taxoon ma bàyyi tamit je vis dans ça c'est-à-dire que j'écris je partage mes écrits je discute avec des gens je rencontre des personnes des Sénégalais pour man ça me suffit mais nan la sa famille di dundee loolu ñoom tamit dañuy sentir euh, Euh, en tout cas wala vous avez pu les épargner. en tout cas ñoom ils me soutiennent dans tout ñoom ñooy jël seen xaalis dañ ko jox en premier wax naa sama papa je vis avec sa pension sama frère ñoom ñooy cotiser seen xaalis dañ ko jox voilà il porte vraiment un soutien moral et matériel inestimable voilà donc euh, xam naa ne lu leen metti la mais c'est comme ça euh, ñu ci bëri ci ñoom ils étaient dans l'armée comme sama papa donc xam nañ ne que lii nii c'est une première dans l'histoire comme li ma wax donc ça va pas être on va te verrouiller partout mais nag man moom dama gëm yàlla yàlla moo wax allahu yarzuquha wa iyyakum nee na moom mooy joxe yàlla moo wax loolu kon ça veut que boo duggee ci yenn situation yi faut pas en vouloir aux gens non yow defal li nga war a def par devoir voilà man dama gëm ne Sénégal comme li ma wax lu ñu nekk tey Sénégal moo ñu ko def kon tey Sénégal boobu ñun waruñu dugg ci lenn lu koy déstabiliser voilà <laughs> je, je, je ferme mes mots. Hein? Exactement. <laughs> Ouais. Mm-hmm. c'est une situation très compliquée. Mm-hmm. mais lan mooy délai de prescription bi c'est-à-dire yow situation bi ngay dund nii euh, dañoo jàpp ne vous avez fait une faute ñu la euh, lan mooy délai de prescription bi est-ce qu'il y a un délai de prescription. waaw mbir moom dina dem ba toll foo xamante ne naturellement après dañuy bàyyi mais je veux dire au au plan légal. Euh, lan mooy délai de prescription bi au bout de dix ans est-ce que ça s'estompe au bout non non non du pour man amul benn temps mais ça dépend rek ça dépend dafa am yoo xamante ni benn phénomène mooy ñëw rek arrêté ko voilà am loo xamante ni nag peut-être dara du ko arrêté xam nga tey ñun ñi ngi toog fii man am naa chance toog fii am na sénégalais yoo xamante ni pourtant Sénégal lañ doon xeexal mais dañ leen tëj ba ñu dee ci kaso yi ñooñu seen anniversaire bu jotee benn nit wala ñaar ngay gis ñu bind seen post ci Facebook di leen rendre hommage Sénégal moo taxoon ñuy xeex mais ñun tey am nañ chance man li ma def nii su ma ko defoon 1983 année bi ma judd wala ay 70 rey nañ ma bu yàgg mais tey dara day xew sax ay journaliste dañ may woo naan ma est-ce bien kon tey ça veut dire que de gens yoo xamante ni ils restent alertes ba yenn affaires yi du am donc c'est important yaa ngi koy def mais dafa am lu bëri loo xamante ni moom moo lay encourager pour nga continuer et c'est important L'incursion des militaires, d'anciens militaires, d'anciens euh, commissaires dans, dans l'arène. Euh, est-ce que loolu c'est pas un risque. Mm-hmm. nan nga gisee tey dé genre délitement bi ñu commencé euh, noter le capitaine Touré génn. Mm-hmm. Euh, def ay ay ay ay ay révélations. ce mm-hmm. sont des ce des des des gestes pas du tout anodins. nan nan nga ko gisee lan ban ban menace mooy peser aujourd'hui sur la vie de nos de nos forces de sécurité. waaw man pour man par rapport à ces sorties amul menace directe parce que tamit ñun bi ñuy ñëw. man personnellement génération bi ma ñëwandool armée on conçoit très clairement ces choses là parce que ñun ñëpp dañ ñëw gis ne armée dafa war a soppeeku évoluer donc tey man du ma déranger ma gis benn gendarme wala benn policier génn di wax dans les médias c' quelque chose de très normal parce que dox nañ ba egg foofu moo tax ma doon wax ne dafa am yu bëri yu xew dans l'histoire d'un pays mais nit ñi duñ ko gis man dafa am benn courbe bu may wax courbe de métamorphose et de progression d'un état boobu c' est sur cinq principes mais premier principe bi sera c'est le principe de stabilité principe de stabilité boobu dañ ko am à partir de Senghor jusqu'à la fin du règne de Wade à partir de la fin de, du règne de Wade ñu am principe de retournement c'est-à-dire que dëkk bi xar kanamam visage bi day changer li nekkoon dootul nekk li nit ñi doon accepter dootuñu ko accepter 23 juin loolu lay indi c'est-à-dire que loolu lay marqué 23 juin bi ñu ñëwee ba 2017 dafa am ñetti nit yu génn te ñooñu administration lañ bokkoon Ousmane Sonko juge dem capitaine ñoo ñu ñoo génn jëmmal retournement boobu mais on n'a pas lu moo tax tey li xew nii nii fan yii nii. effectivement dañ doon calculer man j'ai discuté avec beaucoup de professeurs de sciences politiques ak ñoo xam ne c'est des experts en paix et sécurité suñu waxee ma ne leen 2019 2020 dara du xew mais 2020 2021 2022 Sénégal day wëlbatiku. donc pareegul. c'est que des na des na pays bi day chamboulé wu. ce qu'on a vécu. Mm -hmm. le janvier. exactement. nga ne mun nañu dundaat lu ko raw exactement. dafa am lu ñuy wax calcul. de lecture de projection et de programmation des événements cest à que da ngay xool les phénomènes sociaux nga am yenn croisement yoo def mais da xam ne lii day am c'est scientifique xam nga Sénégal dëkku jàmm lañ. moo tax fan yi da ngay gis ñëpp di woote pour nit ñi dal nit ñi nekk ci jàmm loolu c'est bien suñu tradition la mooy suñu avantage mais man li may wax ni du question de ay ñaan wala ay sarax c'est des calculs yoo xam ne c'est scientifique et ça trompe pas donc d'ici à vingt dëkk bi day jaxasoo. mais ban lecture nga am ci ci ci événement yi ñu yu ñu dund. y a deux choses il y a deux choses en fait. événements qui la vie. Mm douze jeunes sénégalais tey on après que am na beneen xale. Mhm. bu am 13 ans bu mujjee décédé. ci si euh, man dama jàpp ne suñu njiit yi ils ont assez d'outils assez d'éléments pour prévenir parce que la prévision empêche la naissance de quelque chose les populations ont envoyé des signaux de détresse parce que nit yi situation yi ñuy dund métti na soo duggee ci biir population yi nga xam ne c'est très compliqué donc ils ont envoyé de signaux de détresse mais kenn dégluwu leen ils se comporté mais kenn xoolul comportement boobu lecture bi gisuñu ko feet yu bëri day ñëw ay tabaski korité Pâques et cetera nga gis nit yi ni ñu doon comporté woo ci fête yooyu ak léegi ni ñuy comporté woo mais loolu yëpp autorités yi gisuñu ko ils ont manqué de lecture moo tax man bi may wax ci affaire Ousmane Sonko je me suis réveillé ma gis ñu def journal Les Échos affaire de viol et cetera ki ma ko envoyé ma ne ko lii c'est pas bon baaxul mu ne ma ah ni laa koy gisee maintenant ce qui m'a surpris mooy bi ma ko dégluwee revue de presse man ne lii bu fekkoon ne man jege naa président de la république dama koy ne nañ arrêté lii parce que musiba la. lan nga parce que da nga gisoon li li nar a am c'était moo tax bi ma demee toog plateau télé ma ne ñetti nit kase ñoo am ñi nga xam ne Ousmane Sonko lañu àndal ñi nga xamante ne ànduñoo moom ak ñi nga xamante ne ce sont des sénégalais déçus de leurs autorités ba pare profité ci lii. moo tax man mi wax ma ne je demande à Ousmane Sonko de pas appeler les gens boobu maa ngi woon ci prévision calcul. de pas appeler les gens la révolte ñu génn si si. maa ngi koy wax si émission bi ne ko bu fekkee ni may déglu bu mu que da nga xam ne lii day am et on a frôlé le pire dañoo am chance. ah bon waaw ah, dañoo am chance. pourquoi nga ne on a frôlé le pire. on est en danger actuellement au Sénégal le président de la République est en danger. comment ça. waaw ah, gis nga. tey le ministre de l'intérieur a parlé de force occulte je pense que dans son message sénégalais yu bëri ni ko jàngatee dañ xaw a juum tey on a plus un problème avec la personne que le discours qu'il a tenu gis naa ñu bëri ñu fustiger discours am mais le ministre de l'intérieur dans un gouvernement c'est le deuxième ministère derrière celui des forces armées situation d'insécurité bi am ni moom discours bi mu def discours boobu la waroon def ministre de l' intérieur sénégalais yi Antoine Diome ni mu waxee noonu la waroon waxee parce que moom il parle pour l' autorité de l' moom moom faluñu ko moom il a en charge la sécurité des sénégalais moom loolu mooy liggéeyam par contre ki nga xam ne moo war a dalal nit ñi parce que moo njaboote ñëpp te moom lañ fal c' le président de la république moo tax discours bi président de la république c' est ça son discours il devait voilà il devait il devait mais par contre le ministre de l'intérieur la posture bi moom c'est la posture de l'État li mu wax bu ñu ko transvaser ci réalité bi ça colle à la réalité qu'on vit. on a pris des de combat indi leen teg leen ndakaar le ministre de l'intérieur il n'est pas dans l'information il est dans le renseignement cest à li muy yor lu précis la force obscure yooyu mais dañoo dugg si fii c'est pas une blague. mais fu ñu jógee. exactement. dafa am lu ñuy wax la typologie des pays ñooñu bu ñuy opérer ni ñuy duggee Sénégal ni ñuy duggee Mali ni ñuy duggee Mauritanie du bokk ñooñu ñi ngi fii Sénégal di dund ak ñun dugg nañ fi observer suñu dëkk nu mu bindoo socialement ak religieusement seen rapport yu bari boo ko liiree dañ naan Sénégal boo fi duggee boo yeewoo fajar jumaa yi ngay dégg soo demee ba ngoon avant ngay tëdd jumaa yi ngay dégg donc religieusement ils sont soudés socialement ils une bonne structuration léegi nag dafa am beneen forme d'infiltration bu ñuy jël dugg ci biir et c'est là où c'est compliqué parce que boo ko dee wax on fait pas la dissociation entre sénégalais yi nga xam ne tey am nañu déception ci seen i jiit am lu leen metti situation bi nekk effet déclencheur ñu génn wane seen colère ak tey ñi nga xamante ni dañu utiliser mode opératoire yoo xamante ni pour nga dissocier ko ak sénégalais yi sonn di ñaxtu du doon benn. mais ñiy utiliser mode opératoire euh, mm-hmm. yooyu ñu jëlee ci force occulte yi. Mm-hmm. ce sont des sénégalais de souche. Ouais. ce des sénégalais. Ouais. de souche c'est moo tax ñooñu ils sont moo tax man le président de la république tey lépp lu mu jàpp daf ko war a bàyyi te gis nga bu ñu deful nànk ba mu jafaat ba affaire yu tàkkaat va prendre le pouvoir. oh là là mais balaa armée di jël pouvoir tey. les forces de défense vont s'entretuer entre eux ba pare parce que dafa am ñetti mbir yu nekk ci biir yoo xam ne dem na tey ba à maturation xam nga dëkk day toll foo xamante ni il faut parler cru affaire yi doo ko raay moo tax man la tey ñi mën a wax pour jàmm am ñi ngi wax pour jàmm am te nañ wax pour jàmm am mais dafa am loo xamante ni du ay ñaan wala ay sarax cest à ki jiite kooku noonu moom moo war a def attention parce que tey Sénégal sotti nañ ci essence ba pare xosi almet teg si mu tàkk moo des. force obscure yi ñoo sotti Sénégal essence. dafa leer lu may wax nii du lu may liyaar di ko kii sa mi ngi fii taxaw donc y' a beaucoup de choses actuellement au Sénégal yoo xamante ne dem nañ ba taxaw léegi président de la République il faut mu teg lépp ci suuf mu woo Sénégalais yi ci Sénégal pas ci boppam ñu liggéey suñu dëkk. parce que Sénégal dañu am chance bu graaw euh, usman Sonko. dama dégg benn tantam boo xamante ni dafa expliquer nu mu bokkee ak maam rawaan bu paal man soo demee paal nga ne Mamadou Dieye waxuma la paal si boppam mais tout le waalo donc Gandiol et le koo fa tudd bokk naa ak moom Ousmane Sonko ñoo xamante ni boo leen tuddee benn nit ngay tudd ñaari nit tudd Ousmane Sonko ñu élection présidentielle yi seeni carte dañ ko diviser par deux benn bi ñu jox ko Ousmane Sonko benn bi ñu jox ma ko samedi laa toog di ndekki ñu woo ma ne ma mère boobu dafa génn àdduna elle s'appelle Safi Bodian yaa na ko yàlla yërëm kon Sénégal lan moo tax tey ñu war a nekk fii di rayante di waxante. ma force occulte yooyu nan la ñuy provoquer le basculement. waaw mode opératoire bu compliqué la moo tax sànq may wax ne dañuy def de telle sorte que bu ñuy infiltré wu tey pour nga mën leen dissocier ak le malaise social des populations du nekk du yomb mais ce sont des choses très moo tax ma wax la typologie des pays. voilà Sénégal tey socialement boo ko doon définir c'est un pays à fondement social imbriqué et hermétique. donc ñoom dañuy profito ci tension euh, ak malaise. la fébrilité bi la fébrilité ambiante. exactement euh, pour kon kon li ñu gis keroog c'est pas seulement des jeunes. y frustrés de la politique du non. gouvernement. Mm. ce ne sont pas seulement des partisans de Ousmane Sonko. qui ont voulu dénoncer une injustice. man le PASTEF n'est pas comme ça. non donc, sénégalais si boppam violent wul en fait. donc yow da nga dafa am infiltration. dafa leer mode opératoire bi rek. on commence par les banques les commerces les édifices de l'institution c'est ça leur mode opératoire on a pris des bataillons de combat indi leen Dakar ils allaient prendre le pouvoir. c'est le pouvoir. ils allaient prendre le pouvoir. ah ñi may wax nii. les forces occultes là <laughs> am na yoo xam ne mais ils allaient déstabiliser moo tax man ne. mais lan moo doon seen objectif keroog. Hmm? l'objectif c'était quoi. ñoom seen objectif principal bu ñu duggee fii c'est de détruire le pouvoir religieux ba pare yàq tissu sociale bi et la finalité de tout ça c'est le pétrole c'est le pétrole. moo tax bi affaire yi amee dafa am kenn ko ma envoyé message ne ma mais lan moo tax armée du jël pouvoir ma ne ko non armée <laughs> mën na jël pouvoir mais violence amagul mënu ma i lii de bul ko wax mu jëm kaw ma ne ko non li li am keroog du violence amagul ma ne ko xam nga armée buy jël pouvoir lan la lay dañuy couper courant coupe ndox on coupe signal yëpp télévision et tout armée doo ko jël pouvoir noonu la armée di jëlee pouvoir ma ne ko violence yàlla bu mu am Sénégal parce que violence gis nga dangay nekk ci situation yoo xamante ni ñun dañ doon jël ginaar cuisse de poulet jën dañ koy saaf bu mu xaw a ñor suuti ñu teg ko ci ay zinc parce que ñun on habite sous terre boo ñëwee pour togg ko da gis nga baal ba si kàddu bi moo am ay sax da ngay fëgg sax yi saaf ko si dawlin lekk loolu mooy violence. wala ñu nekk si situation nga xamante ni ñànkata ngay am xam nga bii maa ngi doon wax yàpp mais ñànkata ngay am ñànkata boobu boo ko toggee ba pare màngoo ngay jël baxal ko def ko ci lekk. wala nga gis situation xamante ni da ngay dawal sa oto militaire jaar si flaque d'eau nit daw jël ndox boobu di ko naan te ça la l'objectif de toutes ces explications mhm. c'est pour éviter quoi au Sénégalais c'est pour dire quoi au Sénégalais au président de la République mm -hmm. aux politiques ñoom ñëpp tey li leen tax di coow yëpp intérêt Sénégal kon tey kenn si ñun warul dem ci ay extrême ba yenn situation yi di am donc à commencer par le président de la République moom si boppam lépp lu mu jàpp na ko bàyyi lépp mu woo Sénégalais yi ñooy njabootam ñi nga xamante ne tey ñoo bëgg fauteuil bi mu toog mais ñooñu tamit nañu am respect ci institution yi institution kenn du ko fragiliser da koy dëgëral dafa am kenn koo xamante ne dafa ne dëgg bu réeree ci pénc ñu wër ko suba ba ngoon kenn gisu ko nee na kilifa moo juum walla boroom daraja donc y a des nga xamante ni bu ñu àndee ak suñu xel tuuti rek war nañ ko mën a régler am na loo xam ne ku mu jot ci yow rek yàlla da koy def moo tax sànq ma wax ne yàlla si boppam mooy joxe donc yow defal sa wàllu nit mais sa wàllu nit boobu bu sa xol muuree sa xel rek yow bàyyi ma sax yaa ko gën a danger te foofu la dafa mel ni foofu lañ toll Sénégal nit ñi am na àndatuñoo ak seen xel sullante ay mbóot wax yu ñaaw yooyu kese lañ fi nekkee te coow yi yëpp nga gis nii suñ ko jëlee ñu pose ko parce que sa dëgg-dëgg amatul ñu benn njariñ Sénégal mais ñu posé ñeenti question ñu ne Sénégal fan la toll nan la fa tollee fan la ñu jëm nan lañ fa war a demee di nga gis ne trois quarts ñu nekk fi di wax ñëpp dañuy pouse parce que du ñu tontu ci question yi et est-ce que du question yi mooy le vrai débat parce que tey dem nañ ba egg foo xamante ni ñu ngi retournement ba ma lay wax léegi ci positionnement bi lañ war a jëm mais si on fait pas attention on va basculer dans vingt ans de guerre civile. vingt ans de guerre civile. waaw diggante ñan ak ñan. en tout cas si loolu lañ jëm. waaw mais na yoo xamante ne nag man du ma si xuus mais si loolu lañ mais vingt ans de guerre mhm. civile. Euh, euh, gis nga li nga xamante moo ñu téye woon lu ci bëri effrité woon te comme lu may wax dañu seetaan affaire yu bëri ñu dem tey ba màgg ba taxaw am na yoo xam man ñemewu ma ko wax télé mais comme li ma la wax dañ ci liggéey da nga koy xool nga koy gis nga xam ne lii day ñëw mais on a pas réagi. bon donc boo naan président de la na bàyyi lépp. Mhm. mooy ne même mbiru nañu ko bàyyi les prisonniers ñi nga ay ñoom Biram Souleye ñoom Abbas na leen bàyyi ñu ñibbi na leen bàyyi ñoom ñëpp ñibbi donc yii yëpp nañ ko teg ci suuf. la plainte de Adji Sarr contre Ousmane Sonko ko dindi yooyu yëpp amuluñu benn njariñ. mais mais plainte bu nekk en instruction est-ce que mën nañ ci dellu ginnaaw. waaw xam na loo xamante ni si réew nit ñi mën nañ toog ñu régler ko autrement mais ci situation yi ñuy dem nii te lii dinañ ci waxaat on va en 2024. dinañ waxaat si lii autorité yi s'ils ne prennent pas garde man maa la ko wax situation bu yéeme dina xew Sénégal bu yéeme moo tax ma ne la dañuy ñaan effectivement parce que loolu lañ xam mooy suñu réew ñun bëgguñu violence bëgguñu fitna mais tey jamono yi ñu toll nii li may wax nii ay calcul scientifique la du jaas du jaas. ban après boo waxee président de République beneen protagoniste bi mooy Ousmane Sonko. Mhm. ndax.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 pare pare pare dee dee ci dëkk bi du du du lu ko të. non dëgg lan nga leen di wax. dafa am ñoo xam dañuy toog seen kër. am lu ñu lekk am lu ñu naan pour ñoom tout va bien xam nga man maa lay ne toog naa 4 ans yoo xam ne j'ai pas travaillé man sama papa mooy jël xaalisam di ma ko jox kon nit bu toogee amul dara man xam naa loolu lan lay signifier donc nit bu demee ba nga xamante ne moom yemale dund ak dee la yamale si jël gaal am na ñoo xam dañuy dem si géej gi ñëw. dañ la naan bu gaal taxawoon léegi nii ñoom dañuy demaat mais loolu ça veut dire que dafa am benn misère sociale bu métti bu ñuy dund donc jeunes yooyu noonu yëpp tey il faut ñu xam ne tamit xel si doomu aadama mooy làmp bi koy niital am na yoo xamante ne tey situation de pauvreté bi am Sénégal ñi nga xamante ni dañoo taal seen bërëbu liggéeyukaay ñi nga xamante ne dañoo yàq seen ay commerce ce sont des chômeurs en plus ak les intérêts étrangers yu nekk. di di di attaqué di compromettre le climat des des, des affaires. jeex donc yow finalement li nga doon wuta saafara mer la rek booy sorti boo xamante ne safara buy taal fajul dara kon nit yi si boppam surtout xale yi nii parce que avenir avenir bu Sénégal ñun la de toutes les façons donc ñun nañu ànd ak suñu xel nit ki lu mu warul am du ko am nit ki lépp lu muy dund rek na xam ne loolu dafa bokk ci desaaw man li ma gën a bett mooy le fait que ma def sept ans j'aurais jamais imaginé ça mais ba mu demee ba mu jot dama ko def tey lépp li ma ciy dund amul lenn loo xamante ni dinaa yow suba teel naan fan laa jëm est-ce parce que suba day jeex c'est clair amul lenn lu dul jeex kon nit da ngay gëm yàlla gëm yàlla dafa baax surtout boo nekkee ci situation boo xam ne da nga ñàkk parce que yàlla ñi néew doole la àndal. lan moo tax nga décider jël la la la parole. pour tenir sa sa ce discours là. waaw parce que dama dem ba man si sama bopp xam nga nit lu mu xamul xamu ko da ngay dégg ay sénégalais yu bëri yoo xam dañ leen di taalal micro ñu naan nañ taal dëkk bi aller déloger le président nga xam ne ñii di wax ñi xamuñu li ñuy wax lan la bu doon ne rek képp ko am lu la metti nga waxee si mettit boobu kon kenn si ñun du fi nekk soo gisee la loi am les institutions am parce que loolu moo tax. ma xam ne man dund naa affaire yoo xam ne mosuma ci wax dama toog rek jàpp sama jàmbur mais dama xam ne tey bis bi nga xamante ni moo jot pour ma wax ko jot na xëy na ñu bëri suñ ko déggee ñoom mën nañ ci jóge ànd ak seen xel voilà man waxal nañ ma lu nekk mais da ngay xam ne am na yoo xam ne da ngay muñ te noonu la yow yaa jël engagement yooyu man ñi nga xam ne maa ngi leen doon xool Casamance bëri ñii damay bàyyi mais su ma bàyyee du ma dem je vais mener le combat parce que tôt ou tard gëm naa ne mën naa toll foo xam ne ñii seen problème yi mën naa ko faj mais ba may def loolu noonu mesuré woon naa ne que ak lu mu metti metti metti rek nit yooyu noonu man ñi ngi taxaw di ma xaar parce que tey Casamance lu ma fa waxul gëm naa ne ñu bëri mënuñu ko wax su ma demee tey ba mën fa def dara lu ma fa deful gëm naa ne si man la si man la nekk en fait donc moo tax ma ñëw tey révélé loo xam ne mosuma ko wax te yii nii même ñëw a dëkkal sax yenn affaire du ma leen ko wax parce que dañuy yaakaar ne boo génnee si mbedd bi sax ñu këf la yóbbu xam nga nga def émission ba pare ñu proposé la un milliard xam nga loolu c'est de nga dee déedéet ak yeneen affaire yoo xam dañ la koy def mu metti mais nga xam ne noonu la doo bëgg kenn yëg ko parce que nit ñi aussi dañ lay soutenir te yenn affaires yi suñ ko yëgee seen xol day gën a metti voilà donc euh, man noonu laa ko gisee te bi may ñëw sax je craignais émission bi nekk émission bu diis parce que émission yi mu mos a def yëpp bi moo si gën a metti parce que j'allais sortir des choses extrêmement dures quoi te noonu laa ko dundee voilà donc euh, ma xam ne rek lu nekk nit ki bu koy def dans la vie il faut mu ànd ak muñ il faut mu ànd ak gëm yàlla parce que tôt ou tard day jeex après da koy nettali rek et aujourd'hui je suis fier de raconter ça xam ne jël naa engagement si lu ma gëm dund si li ma siy dund xam ne noonu la ñàkk naa si lu ma si ñàkk mais am naa si lu ma si am aussi et c'est comme ça. lan nga ban yéen regret nga am. Euh, personnellement aw ma regret honnêtement parce que dama mës a wax ni bu ma demee ba am benn once de regret si la fait ma démissionné loolu yàlla moo ko yàlla baal parce que ba ma demee ba xam ne dama war a démissionné j'ai compris que je devais ma xool ko ba xam ne du mer moo tax. du frustration du dara parce que en réalité man kenn defuma dara fuloo ma kenn parce que engagement politique ci kaw frustration loolu dafa dangereux. engagement politique ci kaw. frustration ci kaw loolu dafa dangereux. moo tax da ngay gis ñu bëri tey di dund yenn situation yi mais dañ koy wëlbatiku def ko arme di ko xeexee wala ñuy victimiser wu. xam nga tey man li ma jàpp euh, lu ñu ma def lu extrême mooy tey ñu effacer sama tour ci fichier national mënuma am carte d'identité. Ah ah. ba jour bi nga xamante ni kenn dem na ba ne su ma ko contacter mu defaral ma carte d'identité même kooku noonu pour ma dem si moom sax da ngay laaxatu parce que tu le mets en danger ñu bëri tey mënu dem si ñoom parce que je suis suivi je nga xam ne donc da ngay nekk si benn cadre restreint. fi mu nekk nii amoo pièce nationale d'identité. am naa ko léegi. Ah, parce que dama dem si kenn mu ma da ngay ñëw bërëb sangam. mais même kooku noonu pour ma dem si moom sax da ngay utiliser. am nga passeport oui vous êtes libre de sortir du, du, du territoire mm-hmm. sa, sa, sa dernier mot capitaine euh, Dièye en tout cas c'était une c'était c'était fort c'était une émission fort instructive mm -hmm. euh, le message il est puissant mm -hmm. euh, et j'espère que dina dina tàbb mhm. ci nopp destinataires yi mhm. pour clôturer tout ça ce dernier mot à qui est-ce que tu as envie de lancer un, un, un appel pressant waaw man ñetti xeetu nit laay waxal damay waxal ñi nga xamante ne tey ñoo ŋànk réew mi wax ak ñi nga xamante ne tey ñooy kilifa diine mais wax ak ñi nga xamante ne tey ñooy ndaw ñi parce que ñett ñi ñoo fi nekk. kilifa diine yi ñoom ñi ngi wax mais maleen leen di wax ne wax boobu tey nañ ko gën a yokk mais surtout jëmale ko si ndaw ñi ñi nga xamante ni ñoo ŋànk réew mi nañu wàcc. lépp luy xamb lépp luy fitna nañ ko teg ci suuf c'est important ndaw ñi ñoom seen bopp ñun dañu jàngal ne la jeunesse ce n'est pas l'âge des plaisirs mais c'est celui des combats les jeunes doivent porter tous les combats mais dans la discipline dans le respect des lois et des institutions bàyyi saaga wax yu ñaaw lépp loo xamante ne rek ci fugg la jëm mais ñu ànd ak seen xel privilégié waxtaan ak formation ba pare di wax ak mag ñi surtout c'est important c'était mon message de ce soir. <laughs> message de de soir. Mm -hmm. et dama lay ñaan. Mhm. nga di ko répéter. Mhm. di ko répéter waat. Mhm. xëy na quitté nga le les les les rangs des des mm-hmm. mais vous êtes resté un républicain. Si, si. et puis vous êtes resté un digne officier. parce que mm officier aussi. Mm-hmm. Euh, ci noonu la ñu koy xamee. ci valeur yi muy làmboo. Mm-hmm. Euh, et puis ma di la ñaanal. yàlla yàlla yàlla yàlla jàppale la. leeral sa yoon. amiin euh, j'ai rarement fait une émission boo xam ne. <laughs> dama ci <laughs> dama ci am dama ci am. dama ci am émotion bi émission bi reetaanu ma sax parce que ya hmm. li lu ñu reeloo amul vraiment may ñaan ma lay ñaanal daal je hmm. je je suis vraiment je suis vraiment touchée par ton témoignage. Hmm. et puis may ñaan li nga wax mu dugg ci xolu sénégalais yëpp. parce que ce pays la ñun ñoo ko moom et vu en toi aujourd'hui un patriote mmh. qui est venu faire un témoignage mm-hmm. pour euh, pour destiner aux, jeunes de ce pays la ak ñi nga xam ne ñoom ñooñu ñoom ñooñu jiite parce que souvent c'est autour de, de ces injustices là que yenn frustration yi di naître mm-hmm. mais que jeunes yi xam ne ñun ñëpp dans mhm. no dans nos on vit des situations très difficiles mais qu'on ne renonce pas mhm. on ne renonce pas à la patrie on ne mhm. renonce pas au pays ah Sénégal suñu Sénégal ñun ñoo ko bokk vraiment maa ngi lay euh, remercier et puis di la di la ñaanal di la di la jaajëfal jégalu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon ñoom ñoo ñu doon seetaan c'est bon nous sommes tous des des, voilà c'est comme ça en tout cas mes respects. <laughs> merci merci merci bonsoir. merci, mosal seet bi suñu bos la dama ne mosal seet